te gis ngeen li nga xamante ne mooy bëri koog Nicoréel la combat bi ñëpp jëloon favori bi féetewu ci ki nga xamante ne mooy Nicoréel la lamb nag noonu lay demee toujours chaque jour gis ngeen toujours lamb dañuy jox leen favori mais ñu dem ba ci soppeeku wane xaru kanamam ah ñu mu nuyoo ak ñi xam ñu ngi koy suivre fii sama Dakar ñu ngi lay nuyu. abu maa ngi fay di nuyu bu baax xam nga di siyaare. Mhm. am dalal bi nii daal. xam nga mm. di leen bëggee bu mm-hmm. am combat boo tey mu nekkoon le la le 25 astafur le 25 bi passé. 25 septembre ngeen bi yàlla dogal combat bi yàqu. juillet mm. waroon bëre seen diggante ki nga xamante ne ne ko yàlla dogaloon combat bi yàqu. Mm. ngeen indiwaat combat bi nga xamante ne mooy ngeen barki démb le 10 tey waaw le 10 octobre mu ngeen daal ci bëre mm. euh, combat bi diggante boobu ak léegi yàqu bi ma yàqoon ak ba ak léegi marati ba sentiment nga ci amoon ci combat bi waaw combat bi xam nga dafa taxaw mm-hmm. ñu def si lu nekk daj si lu nekk mm-hmm. ba la jour si làmb ji yàqu mm-hmm. ba le vingt cinq juillet xam nga ñu santaat yàlla xam ne tamit loolu la yàlla dogal daal comprendre nga waaw waajaat xam nga di waajaat ba jàppalaat ñu dat Mhm. jàppalaat ñu date le 10 octobre. dëgg la xam nga ñu ànd ak suñu jom ak suñu fulla ak suñu fayda rek. Mhm. xam ne tamit loolu moo ñu war quoi comme ay mbër dañoo war a bëri. ñu ñëw def ko ci fulla ak fayda yàlla mooy ñu ci ndam. Mhm. dëgg la ñu tàmm gis man la di toujours di jël ay combat risque ay combat yoo xamante ne combat yi méttee méttee métti. boo xoolee sa début li nga xamante ne mooy sa carrière yëpp ci làmb. toujours di nga jël ay combat soog nekkoon rek nekkoon favori ci combat bi. waaw loolu dëgg la man moom musuma jël combat bu yomb. <laughs> combat bu mu munti jël rek. dina ne ah maar kii ko jàppe tey mu dee affaire yooyu ba sama combat ak Nékou Réé gis na ni mu demee. dëgg la xaj na bu fekkoon te ne 100 pour cent la 10 pour cent yi ñoo gëm ne dama koy daan. Mhm. comprendre nga. dëgg la waaw ah, mais man moom dama mës a am gëm-gëm ne Nékou Réé fu ma ko jàpp mu daanu mais xaj na tamit nit ñi moom. Mhm. kenn ku nekk xalaatam. comprendre nga kenn ku nekk a fi muy gisee mais ñun li nga xamante ni moom moo ñu war si biir géew dañ koy def ba mu jeex moo tax amul mbër bu ñu munta daan waaw mbër buy taxaw di xalaat nag naan ay marle nii ma xam nga yaa ngi nax sa bopp daal dëgg mhm. ci côté mobilisation keroog gis li nga xamante ne tey mooy mobiliser nga carrément defati nga ko parce que ñëpp xam nañ Marley ci côté mobilisé. Hmm. keroog stade bi gis nañu melokaan bi nga xamante ni def nga ko fa ci côté supporter. Hmm. lamb ji neex Marley gérer ambiance bu lamb ji am nga bàkku neex ñëpp bëgg ci lamb ji dafa mel ne keroog lamb nommoon nañ ko mais indiwaat ngeen lamb ci seen combat bi. waaw dafa leer. Hmm. keroog xam nga baaxu nañ baaxu bu neex. bërë bërë bu neex parce que loolu la bis bi laaj. dëgg ndax mooy li may wax rek dafa am ñoo xamante nii dañoo topp suñu ginnaaw. ma jaral leen lu ne nag yàlla xam na loolu. heure bu ma jugee ñu jug. Mhm. su ma amee combat dootuñu am jàmm. Mhm. si combat bi la ñuy nekk xam nga di si nekk ba keroog combat bi di jeex. dëgg la kon ma seen fay daal. dëgg la comprendre mhm. na mbër yoo xamante ni tey ñu nekk si koñ pour ñu génne ay kaar sax problème la. dëgg loolu boo ko amee da sant daal benn sant. dëgg bi bëriwul coow lool. waaw <laughs> débat bi bëriwul na ci lool Marley. waaw si Marley ni ko réel ba. combat bi maanaam indiwaat sax askanu Sénégal ci làmb carrément mooy si diggante Nicoréel combat bi gis nañ ne Nicoréel ñëpp xamoon nañ bëre kan ci côté bëre wax ci côté qualité bu Nicoréel lu bare bare ci làmb mais ci ay point ay li nga ci maanaam ci li mu mëne ci ko ko fekk ci muy bëre bi nga amoon gëm-gëm ci bëre boobu waaw xam nga moom daanaan la waaw daanaan la daanaan la te def na lu ne mhm. te tamit dafa nekk mbër moo xam ne dafa naqaree daan comprendre nga. mbër la boo xamante ne nii dafa maanaam complet na quoi. Mhm. moo tax ñu si bëri bu ko joxee avance am sax. duñ ko nangoo jël. dëgg la comprendre nga ah. ñun moom amuñu lu ñuy xalaat si mbër. dëgg la ak bu mu mënti doon. Mhm. si suñu gëm-gëm. Mhm. bu ñu liggéeyee mën nañoo daan ku ne. comprendre nga ma gëm na nag man nekku réel ni muy bëree. ni muy bëree moom maanaam comme làmb ji jeex na. waaw mais noonu muy bëree. maanaam du daan. <laughs> la. comprendre nga bu baax comprendre naa bu baax li nga xam ni muy bëree. Mhm. nekkul koo xamante ni maanaam ku may daan la. Mhm. bëre boobu su ma juumul am na benn interview ma defoon. Mhm. ma ne am na ñu gars yi naan dina ñëw sa kaw ak yooyu ma ne leen ki ko yor. permax sama père ma leen permax ma ko yor du ko digal loolu. dëgg moom du ko digal arbitre bi mu ñëw dox sama kaw. <laughs> dëgg la comprendre mhm. ah, ku nga xamul nag. Mhm. mun na ko wax la mais ku wax ku ma xam dëgg. dëgg la ñëw ne ko ah, bul dox ci kaw sa waay. nag mooy loolu daal benn instant. dëgg la waaw yaa ma gën a xam. <laughs> dëgg mhm. parce que boo xoolee combat bi ba di arbitre sifflé yaa dirigé combat bi. waaw parce que yaa dox ci combat dañu ne ko dellu njool la. combat distance du arrangement la combat rapprochement arrangement la. nga ñëw appliqué tamit loolu. waaw mais loolooy dëgg. faaw ñu ñëw xam nga. Uh-huh. war a wane li ñu war a wane daal. parce que waaw loolu mooy yoon tamit xam rek àdduna tëddee noonu. Mm-hmm. nit da ngay gëm sa bopp. Mm-hmm. waaw man bu ma ñëwoon di wane yaa fuus wala may wane leneen ak leneen su boobaa xam nga. ndeysaan dañ may sax jéppi. waaw li ñuy wax si làmb ji yëpp. dëgg la voilà noonu la demee. dëgg la uh-huh. dëgg la ci côté li nga xamante ne tey mooy côté làmb ba léegi ci ñu delluwaat ngeen nekkoon mbër Guédiawaye quatre personnes yoo xamante ne tey Guédiawaye ngeen jógee. ngeen ñëw keroog wane preuve boo xoolee ku ci mel ne Diop bu Siteu njëkk bëre daan. di di di géejuwaay bébé guy gi. bëre daan. keneen ak keneen bëre daan mu des marle ñu ne ah fi mu yan bi gën a diis si sa côté. nga bëri waale loolu lépp tamit. Mm-hmm. waaw nagu leen moom. gars yi rek. abu ay diis ay ponkol yooyu noonu. Mm-hmm. mooy loolu. dëgg la làmb ji boo xoolee ñu ko ub sax. Mhm. mooy loolu. waaw comprendre nga. waaw ponkal yi ñu bëree bëree bëree bëri dañoo xaar. dëgg la parce que làmb nekkul rek gu duree demal bëri ji rek mooy lamb déedéet. dëgg la làmb maanaam don la. Mhm. comprendre nga. Mhm. tamit comme ni nga ko waxee mbaru géejawaay yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci bis bi. waaw wane jom wane fula wane fayda daan. ndeysaan félicité ñoom it mhm. waaw di encouragé ñëpp daal ñi nga xamante ne it xam nga mhm. waaw ñi nekk géejawaay daal am waaw dëgg yaa ma gën a xam daal man dama kontaan ci waa géejawaay dëgg la billaahi ci laay laaj sax la maral lu mu sekk ak mburu géejawaay ak li mu defal mburu géejawaay parce que sa jour combat gis nañ mburu ba ci Balla Gaye bi nga xamante ni sax tey mooy seen monument. kër gis nañ seen taxawaay bi ñu taxaw ci làmb ji. waaw mais looloo leen war ñëpp tey mbër géejawaay yi. looloo leen war. Mhm. ñun géejawaay lañ am. dëgg la comprendre nga. 100 mhm. pour cent géejawaay bi lañ war. kon deretu géejawaay mooy daw suñu yaram. dëgg la couleur géejawaay la ñuy teewal. Mhm. comprendre nga. ki jiitu. jiitu na ki topp topp na ki topp topp na loolu mooy àdduna. dëgg la ndax coggal boo gis muy dem rek am na bu jiitu. dëgg la àdduna moo tëddee noonu. na ñëpp nangu rek. dëgg la comprendre nga. Mhm. man moom moo ma wax rek géejawaay moom man maa ki nga xamante ne maa ci gën a ndaw. Mhm. comprendre mhm. man maa nekk si ginnaaw ñëpp. ndeysaan waaw man moom xam nga rek man noonu laay doxee daal. et eh, la nag. waaw waaw keroog événement bu rëy la. waaw bu rëy lamb keroog gis nañu xaru kanamu géejawaay. dëkk bi. ba fi nga dëkk keroog gis nañu xaru kanamu gaay yi. dëgg la ambiance. xam ñu nommoon ko. waaw keroog amateur yëpp bëgg. nga bëggal leen carrément parce que képp animateur bu dégg mar la mu ngi bëre. am envie dem dagg bien parce que doo fa gis lu ñàkk doo fa gis yaafus parce que Marley saa bu ñëwee lamb wane gaynde gi mhm. wane ti boppam parce que ñoom amateur bu mun doon wala supporter bu mun doon dëgg moo xam supporter bi daf may faral moo xam faral mu dëgg ndax nit moom loo ko bañ-bañ tamit teew li nga ko nangul li mhm. nga xam ne kii maanaam ndaanaan la boo xamante ne nii si biir géew dina wane fulaak fayda daal. dëgg la te àdduna moom lépp loo mun ci nekk boo ci wane fulaak fayda rek. Hmm. amul problème quoi. dëgg te pourtant boo xoolee avance bi ne ko jox ko 15 mbër. oui <laughs> yow rek yaa ko nangoo jël. ah mais loolu mooy hmm. dugg na Pikine. Ah. dugg géejewaay génnaat. waaw dugg fu nekk ay ba nga ñëw nga ne ko cërëbtee. waaw hmm. ah, noonu la <laughs> gëm la rek. dëgg la amul gëm-gëm ci li nga nekk ba Mhm. doomu aadama bi da ngay am gëm-gëm si li nga nekk xam ne yàlla mooy may yàlla mooy xañ yi dëgg la mais nag sa bopp rek ak lu sa bopp mhm. Mhm. dëgg la Marley instant yi ñëpp a ngi laaj fan la Marley jëm fan la jëm fu Marley jëm sànneti sànneti nga sa karawaas toog di xaar gaay di déglu gaay ñu ngi wax nag ay combat yoo xamante ne tey ñu fi weer am ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne tey Marley war nga mën a bëreeg ñoom tey Marley fan la jëm waaw gaay yi ñu ngi wax rek waaw mais man rek waaw comprendre nga. waaw waaw man nekkuma fi di laaj benn mbër. dëgg la nekkuma fi naan mën ak mbër bi nii wala mën ak mbër bee nii. Mhm. licencié daal ku ma làmb booleel naa bëreeg moom. di nga bëreeg moom dëgg la am na ñu làmb soxla na nga bëreeg ñoom jamono ji ñu toll. <laughs> waaw loolu làmb koy proposé. Ah. <laughs> waaw waaw ah, mais dara. waaw loolu dara. Mhm. na nekk adversaire yoo xamante tamit. yu ma war a la rek. waaw loolu doon problème dëgg la waaw loolu la ñuy tàggatoo tey Marley. waaw li ñuy tàggatoo mooy xanaa santaat ñëpp waaw di wax ne am naa contentement si ñëpp. ah di bëggee waa Alba bu baax. dëgg la yàlla na jàmm yàgg. dëgg la loolu rek amul leneen. amul leneen jërë ngeen jëf ah bokk internet Dakar Midi amati nañ mbégte kontaante gis ngeen kàddu gi nga waxtaan nañ ko ak Marley sant na ñëpp gërëm na ñëpp keroog nga si rendre hommage sa doom day Diouf. isan keroog waaw victoire bi victoire am la de moom laa may victoire bi ma toogee nee dëgg kooku kenn la woon man moom laa may victoire ndeysaan ay waxam bëgguma ci xam nga waaw waaw sori ko